waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh Serigne Babacar maa ngi lay fay nuyoo bu baax tey fas yéene ñëw rek ci anam bu tënk ngir tontu ci question yi nga xam ne moom nga posé te mu jëm ci programme euh, religieux bu Bassirou Diomaye fay mi nga xam ne moom lañ euh, fal moo war a nekk président de la république bu senegal ci diirub euh, juróom juróomi at programme religieux nag buñ ko waxee mooy dëgg-dëgg maanaam état bi lan lañ nar. jëmale ko ci euh, li ñu woowee foyer religieux mooy kër kilifa diine yi te euh, mooy tarixa yi wala boog li état bi nar jëmale ko ci euh, kilifa diine yi seen jëm bopp loolu dinaa ci ak li nga xam ne moom la état bi nar jëmale ko ci daara yi ak li nga xam ne moom la état bi prévoir jëmale ko ci cercle bu gën a yaatu mooy diine ji diine ji de manière générale diina ji nag bu ñu ko waxee Sénégal euh, diina majoritaire bi maanaam diine bi nga xam ne moo gën a représentative ci Sénégal mooy l'islam ndax Sénégal téeméer boo jël juróom-ñeent fukki ak juróom ay jullit lañ euh, yeneen juróom yi ci des mooy cinq pour cent yi ci des yeneen diine yi seddoo ko euh, lu ci mel ne christianisme wala ñenn ñi sax nekk ñuy wooye ay athée mooy ñi nga xam ne bokkuñ ci benn diine. kon am na loo xam ne Bassirou Diomaye fay wala boog coalition Diomaye président. Euh, euh, nar nañ ko jëmale ko ci euh, jëmale ko ci diine ji jëmale ko ci kër kilifa diine yi waaye jëmale ko ci kilifa diine yi seen jëm bopp ñu placé lool nag ngir tontu ci ndax benn projet bi yàgg nañ ci gëstu ba am ci conviction ba bokk ci ñi nga xam ne dox nañ ay jéego yu bare bare bari ba li xew tey xew ñaar tamit liir nañ programme yëpp 19 candidats yëpp liir nañ seen seen programme Euh, ñett euh, personnellement euh, waxtaan naa ak Ousmane Sonko waxtaan ak Bassirou Diomaye Faye ñoom ñaar kenn ku ne waxtaan naa ak yow xam naa tamit yow ban gis-gis ban gis-gis nga am jëmale ko ci jëmale ko ci kilifa diine yi nekk senegal ak kër kilifa diine yi kon nag jàpp naa ne dinaa placer lool ngir wax ci na nag ñu nekk ci context boo xam ne ñu bëree bari dañoo nekk ci li ñuy wax incertitude. Euh, maanaam mbir mi dafa lënd ci ñoom euh, ndax am na ñoo xam ne dañuy war di jabolise ak di euh, yàq xel ngir gëm gëmloo waa Sénégal gi yëpp ne ñii daal ay salafiste lañ wala am ñu naan sax ñii ay islamiste lañ buñ faloo maanaam kilifa diine yi seen mbir dootu dootu dox wala boo kër kilifa diine yi seen mbir dootu dox alors que ñu koy wax ñu bare bari xëy na dañoo gëstuwut programme bi ba xam ko rek wala ñu xam leen ñoom personnellement ak xam seen vision ak projet bi dëgg-dëgg lan la nar kon nag dina jar rek ci anam wu tënku ñu ñëw ci ay tomb yoo xam ne euh, projet bi de manière générale ndax euh, dinaa ñëw ay ay leeral tamit ci euh, xam le ne projet bi bokkul ak ak programme bi ndax projet bi moo gën a yaatu programme bi nag mooy li nga xam ne dañ ko def rek ngir mu jëm ci diirub cinq yi lan la état bi nar jëmale ko ci kër kilifa diine yi bu dee projet bi nag moom moo gën a yaatu projet bi moom mën naa nekk ñaari quinquennat ba ñett ba ñeent ça dépend rek ci waxtu bu nekk kan mooy porter projet bi euh, projet bi nag moom euh, mooy li nga xam ne dëgg-dëgg waa Pastef nar nañ ko euh, jëmale ko ci Sénégal bu dee programme bi nag moom ci mandat bi rek la jëm kon loolu tamit dafa mat a balaa may ñëw ci dëgg-dëgg programme bi lan lañ nar jëmale ko ci kër kilifa diine yi kon li jiitu ci euh, Bassirou Diomaye fay nar en tant que président de la république d'abord mooy euh, institutionnaliser kilifa diine yi maanaam def leen ay institution ndax xam ngeen ne Sénégal ñetti institution moo fi am te ñetti institution yi dafa jëm ci ñetti pouvoir yi mooy li ñu woowee pouvoir exécutif mooy président de la république ak euh, gouvernement bi mooy ministre yi ñaareelu pouvoir bi mooy pouvoir législatif mooy député yi ñetteel pouvoir bi mooy pouvoir judiciaire mooy juge ak euh, magistrat yi ñett yooyu rek lañ jàppee ay institution ba képp koo xam ne tey jii euh, yëkkati nga ay kàddu yu euh, ñàkk war ma jëmale ko ci misaal ci président de la république am na benn article buy daal dal sa kaw maanaam am na benn loi boo xam ne day dal sa kaw boo xam ne mën nañ laa condamné ba si mois de prison maanaam bu nit xëyoon saaga président de la république ci misaal am na benn loi boo xam ne da koy condamné waaye bu nit xëyoon tey ji yëkkate ay kàddu yu ñàkk war ma jëmale ko ci euh, Sëñ taxaa wala ci euh, Sëñ Bay Si Mansuur mën nañu ñoo ñoo jàpp la euh, waaye buñ la jàppee amul fenn fuñ mën a fuñ mën a sukkandiku ba tëj la ndax foofu li ñuy wooye vide juridique dafa am maanaam amul benn loi boo xam ne ñooña da leen di condamné kon nag ñii bu ñu ñëwee dañ dañ fay bëgg a jëlee loolu maanaam dañoo bëgg a jël kilifa diine yi rawatina kilifa diine nga xam ne ñun xam nañ euh, def leen ay institution de telle que képp ku leen euh, attaqué ndax xam ngeen ne jamono ji loolu bari na lool ñi ñuy woowee activiste euh, ñi nekk ay Canada ay France xëy rek di def seen live di def seen vidéo di jël kàddu yu ñàkk war ma di ko jëmale ci ci kilifa diine yi te dara du ci fekk ñi nag bu ñu ñëwee dañ fay bëgg jëlee loolu mooy dañoo bëgg a voté loi boo xam ne. kilifa diine yi daf leen di def ay institution ni président de la république nekk institution eh, ni ko député yi nekkee ak euh, juge ak magistrat yi ndax xam ngeen ne Bassirou Diomaye Faye mii nga xam ne moo nekk président de la république li ko bàyyi woon ci prison bi ci diirub neuf mois mooy dañoo wax ne dafa defoon offense euh, au magistrat maanaam dafa jëma yëkkati woon ay kàddu jëmale ko ci euh, magistrat yi ba tax ne loolu ñëw fekk ko fa mu nekk jàpp ko mu nekk ci prison pendant neuf mois kon nag magistrat yooyu ni ñu jàppee institution ba ku yëkkati ay kàddu jëmale ko ci eh, jëmale ko ci ñoom eh, ñu jàppe ko offense ba mën nañ la ca tëj eh, kii nag moom bu ñëwee moom dafa dafa wax ne kilifa dañuy daf leen a bëgg a def ay institution ba ku waxati ku yëkkati ay kàddu jëmale ko ci ñoom rek bu dee kàddu yu ñàkk war ma la am na luy dal sa loo xam ne mën na laa yóbbee ba six mois de prison kon loolu moo jiitu ci li xam ne moom lañ proposé jëmale ko ci Euh, jëmale ko ci euh, chef religieux yi te loolu nag di une première dans l'histoire du Sénégal ndax euh, ñoom mës ñoo jàppee te loolu personnellement man xam naa ci dara parce que mas naa waxtaan ak Ousmane Sonko mu wax ma loolu ne ma Sénégal bu agsee fii dafa am taxawaay bu solo boo xam ne kilifa diine yi taxaw nañ ko ci kon nag ñun dañoo am obligation ci ci ci protéger leen waaye wëruñ leen a jàppe ay citoyen lambda wala ay simple citoyen kon nag ñi moom xam nañ dëgg-dëgg lan mooy Euh, lan mooy waayu kilifa dine donc ñaareelu proposition bi mooy un budget pour le culte culte nag buñ koy waxee mooy mbooleem lu jëm ci euh, diine yi rek li ñuy woowee les religions révélées euh, ci la l'islam di dugg ci la christianisme di dugg ci la judaïsme di dugg ak mboolem diine yi am Sénégal rek donte l'islam mooy majoritaire waaye am na ay chrétien am na sax ñu ne am Sénégal am na ay juif léegi mooy judaïsme ñi nag buñ ñëwee dañoo bëgg a un budget pour le culte maanaam euh, ci début d'année bi nga xam ngeen ne assemblée euh, dañ leen di soumettre budget yi pour ñu voter ko ah, budget bu jëm ci culture budget bi jëm ci sport euh, budget bi nga xam ne moo jëm ci éducation et cetera xam ngeen loolu mosta am ci histoire Sénégal état bi di proposer budget boo xam ne dafa jëm ci kër kilifa diine yi ñii nag buñ ñëwee dañoo bëgg a proposer budget boo xam ne dafa jëm ci culture bi mooy ci misaal màggal Tuubaa bu jotee. Euh, li nga xam ne moom la état bi warlul waa Touba loola dañ koy boote ci njëlbeenu année bi nga xam ne bu bu màggal Touba jotee moom la état bi di warlul waa waa Touba ak la état bi di jox waa Touba loolu lay doon du nekk lu informel euh, gàmm tamit bu jotee la état bi di jox waa Tivaouane wala waa Ndiassane lay demee nga xam ne état ci budget bi dina am sañ-sañu ci misaal benn benn kër kilifa diine buñ ñëwoon ne dañoo am jàkk joo xam ne dañoo bëgg état bi tax tabaxal leen ko état bi dina ko mën a tabax ci budget boobu budget bi nga xam ne moo jëm ci moo jëm ci culte bi wala waa euh, wala chrétiens yi sax bu ñu woon am église boo xam ne dañ ko bëgg a tabaxlu état bi dina am sañ-sañu jël ci budget boobu tabaxal leen tabaxal leen église mooy vote budget boo xam ne dafa jëm ci culte bi te dañ koy def nag de façon équitable équitable mooy ci anam boo xam ne dañ koy lal ci équité ndax xam ngeen ne boo bokkut ak égalité égalité mooy ñëpp tolloo. mooy li nga jox Touba moom ngay jox euh, Tivaouane moom ngay jox Ndiassane moom ngay jox euh, Layeen et cetera xam nga loolu moom mënut nekk ndax lay yeewoo Touba yeewoo Tivaouane yeewoo Ndiassane Ndiassane yeewoo Layeen euh, yeewoo ay Medina Baye gi mel waaye équité la ñuy doxal foofu équité mooy kenn ku ne nga jox ko lam yeyoo xam ngeen ne département de Mbacké mooy département bi gën a peuplé ci Sénégal sur le plan démographique mooy premier département loolu gis ngeen. recensement bi ay ANSD mujjee def kon la ngay jox Touba du bokk ak xëy na la ngay jox Tiwaawan la ngay jox Tiwaawan tamit du bokk ak la ngay jox waa Ndiassane et kon noonu lañ fa yéene doxale ci ci point bi mooy vote budget xam ne dafa jëm ci dafa jëm ci culte bi su ko defee lépp li ngay def jëmale ko ci culte bi mu nekk lu formel lu formel bokkut ak lu informel te informel mooy indi euh, mooy indi ak féewalo wala mooy indi yenn jafe-jafe yi ak ñàkk transparence ndax ci misaal boo xëyoon rek yëkkati benn cinquante millions ne da nga koy yóbbul waa màggalu sàngam cinquante millions yooyu noonu bu fekkee ne nekkul loo xam ne dafa am trasabilité euh, ña ngi ko jox xëy na mën nañ caa doxalee nu leen neex wala boog wala boog ñi ngi ko jox ngir ñu yóbbu ko sax mën nañ caa doxalee nu leen neex waaye bu fekkee ne dafa nekk budget boo xam nañ ko voté euh, li danañ ko xam euh, état bi ci misaal ci début d'année bi mën nañoo wax ne ñaari milliards moom nañ prévoir jëmale ko ci màggal Touba ñaari milliards yooyu nag ci la assainissement Touba di dugg ci la Euh, ceeb bi ñu yóbbu ci kër kilifa diine yi di dugg ci la euh, euh, nangam ak nangam dugg maanaam noonu lay demee ci gàttal. beneen bi mooy taxawal liñ naan conseil supérieur musulman loolu nag di loo xam ne mosta am ci histoire politique bu Sénégal ku mosa mos a ku ko mos a proposé wala ku ko mos a doxal loolu buñ ko waxee mooy comme majlisu suura rek maanaam ab kuréel boo xam ne ñu koy seq ay boromi xam-xam lay doon ay imam kër kilifa diina bu ne di nga fa am euh, représentant ñooñu nag état bi ñoom lay bàyyee euh, diine ji ñu saytu ko ndax xam ngeen ne Sénégal féewaloo yi am bari na lool ci wàllu séntu weer week euh, ak ak yeneen ak yeneen ñun mel nga xam loolu sax day dem ba jur ak tàqaliko wala boog division bu mag ci kër kilifa diine yi lu mel nii nag bu bu taxawee. conseil supérieur musulman wala boog majlisu suura boobu nga xam ne kër kilifa diine gu ne da nga fa am ci misaal dañ naan sëñ sëñ Muntaxa jox ñu ñett euh, suñ Bay Si Mansour jox ñu jox ñu jox ñett ñu jël ca euh, ibaadu ya ñaar euh, jël ca imaam yi ñett jël ca église ba ñett nga xam ne noonu lañ koy doxalee ba ba am kuréel goo xam ne lépp lu jëm ci mbirum diina Sénégal rek ñoom ñoo koy ñoom ñoo koy saytu te su boobaa état bi dana leen délégué pouvoir yu bëree bari yoo xam ne. yoo xam ne daal jullit ñi wala bokk euh, diine ji ci gàttal danañ mën a danañ gën a mën a gis seen bopp ci ci yoreen réew mi euh, beneen bi mooy li nga xam ne état bi da koo nar te mu jëm ci daara yi xam ngeen ne Sénégal ay junni junni daara ñoo fi nekk euh, Touba gii rek boo ko jëlee defe naa li fi nekk ci daara buñ ko xaymaa ëpp na ëpp na ñaari junni daara te état mësula boote budget wala mu def lu formel Euh, jëmale ko ci jëmale ko ci daara yi donte état bi fi jóge euh, régime bi fi jóge am na lu ñu tàmbali woon mooy euh, programme modernisation des foyers religieux waaye ba tey loolu dafa dafa informel ndax man mii rek waxtaan naa ci ak ki nga xam ne moom lañ ko dénkoon moom lañ dénkoon programme boobu moom ci jëm boppam moom wax personnellement ne moom mos mosuñ ko jox budget ngir loolu kon xëy na amoon na ci tour ni amoon na ci tour waaye en réalité amutoon ndax programme modernisation des foyers religieux ak programme modernisation des des daara ba tey ci amul benn jéego boo xam ne jéego bu concret la wala jéego bu am impact boo xam ne régime bi fi jiitu defoon nañ ko fi ñi nag bu ñu ñëwee dañ ko bëgg a formaliser ba mu nekk lu formel maanaam ci budget bi nga xam ne moom lañ euh, moom la ñu war voté tam jëm ci éducation xam nga ne éducation Sénégal moom li ñu reconnaître comme éducation mooy euh, école française yi école française rek lañ jàppee ay école maanaam daara yi dañoo informel ñi nag dañoo bëgg a formaliser daara yi boole leen ci. programme mu intégré leen maanaam ci enseignement wu Sénégal nga xam ngeen ne Sénégal euh, suñu budget 40 pour cent ci suñu budget ci ci ci éducation la jëm te taxut éducation bi efficace ñii nag éducation boobu dañ cee bëgg dañ cee bëgg dañ cee bëgg boole daara yi nga xam ne daara ju ne dina am allocation boo xam ne état bi dina ko warlul maanaam daara ju ne euh, dina am ab xaalis wala bokk fonds yoo xam ne day jógee ci état. wala boo mën naa nekk sax matériel boo xam ne day jógee ci état euh, di jëm ci daara ju ne ñu koy def façon inclusive inclusive mooy ñëpp bokk ci waaye de façon équitable équitable mooy li ma doon wax léegi li ma doon leeral léegi maanaam ñu def ko ci anam boo xam ne daara ju ne rek dañ lay jox yow la nga xam ne moom nga moom nga moom nga yoyoo euh, prévoir tamit programme boo xam ne dafa jëm ci former li ñu wooyee euh, suñ daara yi mooy les maîtres te loolu ci histoire politique bu bu Sénégal ñu ngi ciy soog gis ay sëñ daara yoo xam ne dañoo créé mouvement ngir fal ab président te loolu dara warlu ko lu dul ne dañoo gis seen bopp ci ci li nga xam ne moom la moom la moom la prévoir euh, li mu prévoir nag bokk na ci former former suñ daara yi ndax xam ngeen ne suñ daara yi kenn du leen former te ñàkk a former ab suñ daara ci misaal mën naa indi ay jafe-jafe yoo xam ne day jëm ci rapport yi nga xam ne moom la war a am ak ki muy jàngal kon yooyu yëpp. ci ab tënk rek ëpp na lii sax waaye ci ab tënk euh, mooy li nga xam ne dañ koo euh, dañ koo programme yi jëmale ko ci daara yi te muy programme bu am solo ndax daara yi mosuñ leen a reconnaître euh, mosuñ leen a reconnaître ñun ñi nga xam ne jaar nañ daara jaar nañ école française gis nañ gis nañ gis nañ différence bi kon bokk na ci li nga xam ne programme nañ ko jëmale jëmale ko ci daara. waa yooyu nga xam ne moom laa tudd nag day day day dugg ci li nga xam ne moo jiitu ci programme religieux bu Bassirou Diomaye Faye mooy li ñuy wax la liberté de culte. Euh, liberté de culte nag moom constitution bu Sénégal moo ko garantir loolu moom bokk na ci premier article yi nga xam ne moom la constitution bu Sénégal garantir euh, liberté de culte mooy nit ki nga am sañ-sañ ci euh, pratique sa diine saa soo ko bëggee ak ak ci anam anam bi nga ko bëggee te loolu boo xoolee daanaka réew yëpp am na fi France gii am na fi am na États-Unis am na Angleterre am na fépp liberté de culte nag mooy fondement wu. mooy fondement fondement programme religieux bu bu bu Bassirou Diomaye Faye euh, di ak ci ak tënk daal euh, li nga xam ne moom lañ euh, moom laa bëggoon a indi ci ay leeral xëy na bu fekkee ne am na ay question yoo xam ne ay nit bëgg nañ ko poser ñu poser ko rek xay na fii ak guddi incha allah ñu indi ci ay leeral maa ngi jégaluwaat bu baax tey tuubaat bu baax tey ziyaaraat bu baax a baax kilifa yi wasalaamaaleykum wa rahmatulah.